La parole est à notre collègue Mam Fahm, Fam, suivi de Oumar Sissé. asalaamaaleykum waaye àbb maama ngaak la mu gën yow àbboo ay maam te sa juróomi ñaari maam ku ko wàññi fekk ci jaam waragul benn tànk àbb maama ko gën li kook corom maa nekk muy maa sàmba gay rey na gaynde maysa sa rey na gaynde ma ne àbb maama ngaak la mu gën

sunu 500000 voix yi mës ta wàcc te ñoo ngi ko téye ba mu dëgër kan di xaar kuy wax waxal sa waxu bopp sa patron yónni wala de sa patron ngi raam di chicoté di lamb di seet nu mu def ba jot kuy wax waxal sa waxi bopp ma bëgg ngeen xam ne fii la ñu toogoon aar Sénégal bi rhinocéros jiite

mu taxawaat ni Karim et français yéen da ngeen a xamul ki ngeen di faral waa d'accord naa waa kii nee na Khadija moo ne sa ngembal noonu boo ko gisee sa la sa sa mbëru gon sa mbëru xarit moytul sopp ba du loolu nga wax d'accord naa ci fukk yoon ak juróom-benn waaye man damaa d'accord ni lañu waxoon daaw dara manqué gu fi et man damaa taxaw fii xeex bi Ousmane Sonko ne ces juges sont des pyromanes ma xeex

élection bu jaree ñu dàq ko ba jamono yee di ñëw dañu koy dàq kenn mënu ci dara ndax fii amul benn force bu fi mën a taxaw boo xamante ne du mooy liy jàll li lii tey buñ ko waree dàq dañ koy dàq ah. na ngeen xam ne fii amul par force par la nag amu fii ñun Ablaye Wade dañu jur ni nit ñi di tegee ay stratégie waxoon naa leen xam leen kuy moome ban rek mais xam leen bu waa bi bu wëlbati ko ci kan lay daal xamu leen ko tey noo moome baa tey ñoo moome baa wax ji fii la ne nañu copparti ko lijjanti ay xaritoo ba jël ba jël affaire bi kepp ko ba jéem a éliminer benn doomu aadama ndax da ngeen xalaat ni amu fi ay mbokk waa léegi kon bu ñu wax comme moom amu fi ay mbokk kay jóg leen rek dem bu ñu def commission d'enquête ñu seet koo koo fi amee mbokk may saag ma sàmba moo la ñuy toog nous sommes tous des Karim Il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans la présence de Karim sur les listes électorales je remercie l'Italie qui est présent avec Moustapha Fall l'ancien collègue mariso Ndiaye et tout le monde je vous remercie merci beaucoup merci cher collègue. la parole est à notre collègue Omar Sissé, suivi de Abbas Fall

waaw wax man de dëgg-dëgg waaw damay tiit ndax dama gis sama tubéy ci sama taatu noonu Le, le, le, le, président Karim Wade est, est, est, est, ostracisé depuis plus de dix ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2019, le président Khalifa Ababacar Sall et le président Karim Wade bu ñu bokkoon l'élection, élection yi Macky Sall sax président de la République du Sénégal ma ne kon kon li ma xaw les droits du président Karim Wade sont piétinés depuis plus de dix ans depuis plus de dix ans kon il ah nañu situation parce que y a tellement de personnes qui ont été maltraitées mal jugées à l'issue de ce processus électoral mais excusez-nous il faut que nous... tiit les faits reprochés sont gravissimes il faut ñu d' accord ci li waa reproché gravissime Jarna, l'air. mais deug deug buñu néma ne ma wedd tuuma ben ben benn sawar ci li dinaa ko gëm difficilement ndax it yeneen commission d'enquête ñi demandé won ku ci ne bu ci ne am na tuuma bu mu xaw a teg ci doomu gor waaw waaw li ñu fi li ñu fi demandé yëpp ci commission d' enquête yu ci bari teg nañ ko ci doo noddu gor kon man de wër na ma ni du wedd tuuma moo tax ñu gaawantu ci léegi nag lan la lan moo tax mani man sama xalaat ci double national yooyu man tuuma dama di la, loi même doit évoluer. La loi doit évoluer. Vous que nous régler. Très simplement. Ce que nous président n'est pas, double nationalité. Il faut que président bi réformé réformer loi pour que y jox mois au rapidement et je trouve que ça il faut régler ça vous dama xam nga loolu loolu moo ma tiital xam naa ni corru lutte contre la corruption taxul taxul ngeen jóg xam naa ni restituer les droits du président xale du président Karim Wade taxul ngeen jóg li ngeen tax li leen tax a jóg kay laa xamagul moo tax li leen tax a jóg laa xamagul moo tax ma bëgg commission d'enquête parlementaire bu ma édifier ci leen lan moo leen tax commission d'enquête boobu commission bi may bëgg man commission d'enquête parlementaire la pour lux moot yéen waa Bennoo lu leen tax a commission boobu bëgg naa mu déglu président de la république bëgg naa mu déglu aussi waa assemblée yéen nag xaw lu tax ngeen gaaw mbir mi nee ko doxee ni bëgg naa xam lu leen tax a jóg xamaguma ko de xamaguma ko de li ma commission d'enquête may proposé daal mooy na na lux boot yéen yéen ngeen xam ne mosu leen d'accord ci ñu respecté droit wu candidat yi yéen nga xam ne yéen ay champion élimination yéen nga xam ne seen yoon ci corruption yéen nga xam seen yoon ci corruption xaw ma lu leen tax a man dama gis sama tubéy ci sama taatu noonu moo tax